beddi kañ la tëj ci kaso gi. Mm. waaye billaahi wallaahi tallaahi ma Maxtaar Gueye mënumaa tëj te du ma tëj. Mm. jàpp nga ni plainte bi. mënu ko ci man loolu xam naa ci lu leer. ma Maxtaar Gueye mënumaa tëj te du ma mu ne Sénégalais yu bari nee nañu enfin fi mu toll nii waaji noppi na. waajan mooy yow ñetti plainte moo tegu ci ndoddam. na mais man plainte yi bu ma toon junne mu gën a baax sénégalais waxuma taxu taxuñ maa wax kàttan bi may waxee moomuñ ko joxuñ ma ko. Mm. ngelaw li may waxee moomuñ ko joxuñ ma ko. xam-xam bi may waxee kenn ci sénégalais jàngaluma ko jàngewuma ko benn këru sénégalais fii donc yàlla mi tax may wax lu sénégalais donc nan leen ma a noppiloo. Hmm. ah te te dama xam ne Jamra moomutul nit ñi moom day jox day plainte ci kan la jëm ci procureur. Hmm. procureur moomu ma ko moomu ma. ko fa teg ngir dara man mu war maa woo ngir dara su fekkee awma benn argument dama xas l'islam saaga l'islam hmm. bu ma yërëm na procureur jaarale yoon ci man. ndax ñeneen ñi ci ginnaaw jël exemple mais li ma wax man. Hmm. ci kanamu yàlla ndam laa am ci kanamu nit ñi ndam laa am te suggestion. Hmm. dañu teewul maa ngi indi suggestion ñu ne la kaay tëdd kaso pour lan moo tax kaay xool ñoom seen dossier bi hmm. dañuy làqatu ci moo waxoon nanga moo wax nanga moo wax nanga waaye ah. lan moo tax Ahmed Cissé saa su ne mu mel ne day créé yi quoi genre créé affaire de buzz ya ah yi moom ak Pawlish la tey gis nga li mu waxaa dafa mel ne saa su daal yow rek bëggoo di nga bëgg daal di feeñ ñu lay gis. ci ay wax yoo xamante ne ñenn nit ñi duñu ko comprendre lu tax loolu dafa bokk say gàllaaj wala euh, yow loolu dala neex. parce que da ngeen suufee rek. Hmm. xam nga nit bu suufee wax wax bu suufee rek lay wax kuy wax ci lislaam ak proposition sàmm nit ñi nga ne bës <laughs> man man wër naa bës ba am ko. Hmm. dama téye bës soxlaatuma ko. mais lii dafa wute wut ak Pawlish ak leneen lii dafa mhm. sérieux ci man dafa sérieux waaw dama yërëm jullit ñi dama yërëm nit ñi am proposition ngir l'islam mhm. te lii dama bëgg mu dem mhm. dama bëgg nit ñi di ko def dama bëgg mu tax quoi nekkuma ci yooyu sax yi ñuy wax ni yooyu dafa suufee lii yàlla laa ak yonantu du du fo d'accord d'accord tudd nga léegi wax nga léegi ba tudd étranger sénégalais yu bare nee nañu étranger nga te jamono yi toog nga weddi loolu dafa mel ni da nga ko dëggalaat léegi ñoom nee nañu gambien nga da nga war a dem Gambie quoi bàyyi Sénégal parce que tamit yaa ngi bëgg yëngal réew mi Euh, lan ngay wax ci loolu ñu bari ñii nee nañu sénégalais nga ñii nee nañu gambien nga benn côté lan ngay wax ci ñi nga xam te nee nañu nga gàddaay jóge réew mi damay wax ma ne nit ki boo ko meree wala nga jéppi ko il faut nga utiliser sa xel hmm. man kenn nit bu ma jar sénégalais naan na nga génn dem Gambie ñaata Gambie ñaata ñaata sénégalais ñoo nekk Gambie plus de huit cent mille personne ñu ngi fa am jàmm su ma ndey ak su ma baay jàmm jooju leen fam am ba ma juddu man nga toog ne kii na génn Sénégal te sénégalais yaa ngi Gàmbi ñaata sénégalais ñoo fa def crime première dégâts ñu jàpp leen ci kaso yi ñaata sénégalais ñoo fa nekk di daan seen doole yow nga toog gàmbee di la seetaan nga ne kii Gambie la na génn ñaata nit nga mën a provoqué man jaruma loolu neen ma xeex man attan naa ko neen ma saaga attan naa ko neen wax lu ne mais bu ñu menacé loo xam ne dafay war a mën a jur fitna ci ñaari réew parce que ka ngay wax. di moment nga ne Gambien rek laal nga Gambien yëpp te Cheikh Ahmed am na Gambien yu ko bëggul am na ñoo xam ne te ma sañoon am na ay Gambien bu ñu sañoon ma dee comme ni yenn sénégalais sañee suñ moomoon suma bakkan tey ma dee donc nen di xeex intellectuellement c'est très important mais tim nit ki na ko man Macky Sall gënul ma doon sénégalais dem leen ci constitution Sénégal ngeen xool góor ak jigéen bu juddoo Sénégal dëkk fi jur doom ak fu doom ji mën a juddoo. doom jooju takkaat sénégalais am doomi sénégalais constitutionnellement sénégalais la wala étranger neen bàyyi li ñuy wax quoi man may nekk ci lu ma nekk yenn saa yi ma ne Sénégal yenn saa yi ma ne Gambie mais double nationalité dama ci am droit Kalidou Koulibaly capitaine la nangu neen ne Sénégal fu mu juddoo France kenn daf ko mos a génnal neen bàyyi caaxaan te lu ñuy foyee noonu dafa sew gis nga 2002 Gambie yi mënu leen dara rek a xewoon. ñaata sénégalais ñoo suivre conséquence ci football boobu ñaata yoon lañu ñu tëj frontières yi man may benn doomi sénégalais benn doomi Gambie bu mus a def sénégalo Gambie convergence man la def conférence internationale woo Sénégal ak Gambie jullitee chrétien boole leen plateau ñu waxtaanee jàmmi Sénégal ak Gambie ndax benn jëmm leen boo xam ne ku ci socc sa morom ti sóoli mm-hmm. importance boobu ma liggéey Macky Sall ne may ndaw aadama Barrow ma def conférence bu rëy ngir bëgg Sénégal ak Gambie keroog bañ ma dóoree kaw la Gambien yi mer maa dugg ci Gambien talent promotion ma ne Gambien nag may dégg ñu ne waa ma ne leen seen yoon nekku ci man leen dóor mën naa koo faj ñëpp toog parce que bëgguma fitna jur juddu ci Sénégal ak Gambie jugee koo ci man xam naa ni ñu bëri ñu ngi ma doon xeexal bëgguñ ma woon waaye fitna rek leen yàkkamti pour utiliser ko mais man man. altu Gambie ngir jàmm am parce que man mën naa ko régler hmm. man leen maa jugee Gambie dem Sénégal ñu dóor ma suma affaire la bu ci kenn yooni kenn nekk hmm. noonu laa demee ba élection yi passé ma taxaw ne xàmmee ngeen ma hmm. man mii leen dóoroon suñ bàyyi ñooñu jur ndax paa bi daf noonu suñ gañewul bàyyam juru ko affaire bi jeex donc jàmm jooju may dox Sénégal a Gambie c'est parce que dama xam valeur Sénégal a Gambie na Sénégalais yi bàyyi xel loolu xeex Cheikh Ahmed yomb na su ma mbon conteneur la génne ko di détail waxal ci man mais bàyyil Gambie neen bàyyi itam naan taalibe bàyyi la ootewuma ko man mm. wax naa publiquement muy leer plusieurs fois gëmatuma benn sëriñ mm. bokkatuma ci benn këri diine suma ma bàyyi laa gëm fa laa nekk lii yàgg naa ko na ma nit ñi toppal lii mm. te bañ naan taalibe bàyyi la mu ngi yàq dere bàyyi bàyyi ñes yàllaa ko aaral boppam kenn mënut a yàq deram rawatina ku yées ku mel ni man dafa tuuti ci yàq dere bàyyi nit ñi bu ñu la bëggee saaga dañu yoon naan la sëriñ nga nga yow nangam nag ngir mën la saaga moo tax neen ma teggil loolu mhm. li ma ñam man ñam naa ko maa koy taxamte ko te du jeex ba na tukki mais woote wu ma lenn lu mooy suma doomi bàyyi la jërëjëf Ameth defe naa loolu am na solo leeral bu am solo nga def sénégalais yu bëri dégg na la ci ni nga waxee yaa ko wax ah, beneen bi mooy coupe du monde bi ah, suba la ñuy fubal gis ngeen tey la tàmbali ouverture bi ah, Sénégal war fubal suba moom ak Pays-Bas donc gis nga li nga xamante ne dal na dal na dal nañu ci muy ki Sénégalais yu bëri yaakaaroon muy Sadio euh, du fubal euh, donc am na ñu jotoon nag génn ñi nga xamante ne nee nañu ay seetkat lañu ñii ay yant lañu ay kii dina ay génne ay sarax ñii ni nanu nelu ñii ni nanu génne lu weex euh, Ahmed lan nga gis ci coupe du monde bi. xanaa taal suma télé seetaan bu Sénégal dugalee ma yuuxu buñ ko gañee mën na xam du ma ca ñaan du ma ci def aw ma ci xam-xam. amee xanaa waaye nag li ma gëm mooy Sénégal du jàll loolu laa gëm. yàlla naa fen mm. te am ndam. Mm. mais loolu est-ce que du xooloo ko nii. xooloo suma baatin du pour kenn koo xam ne. maanaam mm. suma baatin pour man la ak ñi ma neex ak ki ma fay. waaw mais réew mi jaral la nga xool Sénégal ba xam ne soo def loolu. réew mi jaral ma ko de ñii doomi réew mi leen dañ leen fay jox leen hôtel jox leen ñuy lekk ci xaalis réew mi dirigeants yi dañ leen fay jox leen foste classe ñu tukki ci xaalis réew mi man lu ma ci suma télé bii laay seetaan jënd mayo moom mën naa ko def ci àndalaa buri ci ginnaaw ñu yuuxu ma ne yee eh, eh, eh, dugg na ñu pare ma ne ah, yàlla baax na prochaine fois parce que nekkuma ci. Hmm. te man nitu intérêt la. Hmm. sama intérêt nekku ci daal. jërëjëf Ahmed Cissé ñu ngi lay bàyyi nga wax sa kàddu gu mujj nu daal di yëkkati jotaay bi. suma kàddu gu mujj mooy garab yi nga xam ne moom laay jaay te réew damay yokkaat doos bi ndax bu noonu yokkoo rek te da nga war a yokk. garab yi moom naa faaw moom ci benn dama koy dégg rek. donc àndalaa buri vingt cinq mille lay jar. Mhm. doy waar yokk naa ko régu mu ngi paraasam soixante mille. Eh. mais yokk naa yu fees léegi man damay traité gaaw a daanu pour cinq ans waxoon naa ko Macky Sall hmm? comme diine ji Sénégal am nañu ko téye. Hmm. Euh, moom mu ngi téye administration. Hmm. na ma dénk awra góor ñi ma koy dëgëral di ko noddanti di ko jubbante mën naa ci dara. Ah, suma xam-xam dafa màcc jëm ci wàllum awrate mooy suma liggéey mhm. donc neen ñëw yi dëng yi damay jubbante yu tuuti yi ma réyal yu gàtt yi ma gudda ba pare bu nooyee ni banaana di lajax mhm. ma yóbbu ko ba mu dëgër kaj ndax Pape Diouf nee na góor day dëgër donc garab yi mu ngi fii baax ba bëgg a dee mhm. na ngeen ñëw àndalaa bëri foo ko tourné gis ko ma jaay leen ngeen dëgëral kër yi moo tax ah, bu leen jaaxle ah yéen ñi naan waa seex bi sa plainte yi bu jàllee nu ñuy def ba tey damay dëgëral kër yi <laughs> pare plainte bi mënul jàll parce que ci dara man lu ma wax mm. du lu bon mm. xel moo ko nanguwul mm. waxee wu ma xel diine laa wax donc euh, am na ñu bokkale yàlla am nañu wax lu gën a rëy mais ñooñu dañoo am bàjjan ak nijaay ci réew mi moo tax jàmm mais man ama bàjjan mais yàlla dafa ma doon doom dana neex ndey maa ngi dégg Makhtar Gueye mu ne Jamra musul perte dossier ah kon de Jamra dafa leneen loo xam ne daf ko am ci ginnaaw te nit ñi xamuñu mais buy dëgg rek man ma nekk ci dëkk jërëjëf Ahmed Cissé defe naa mbool euh, mbokk internet yi dégg ngeen li nga xamante ni moom la yëkkati muy kàddu yoo xamante ni tamit aussi ay argument yu leer la muy koo xamante ni tamit encore une fois ci réew mi la bokk jàpp naa ni rek nit ku baax la koo xamante ni boo ñëwee ba toog ak moom di nga xam nit nga toogal di nga xam ni borom xam-xam tamit ku jàngoon nga toogal donc jàpp naa ni ñun ñëpp ci réew mi la nu bokk Jamra tamit ci réew mi la bokk ku nu war ñëw toog waxtaan ak moom la ku nu war jege la ku nu war laaj ay xam-xam la ku nu war laaj ci diine mu ciy wax la ci ni nga xamante ni noonu ngeen ko déggee ci ni muy waxee xam-xam waaye façon intellectuelle bi nga xamante ni spiritualité bi nekk ci moom moom Ahmed Cissé mbokk yi ñu ngi leen jox dig daje ba beneen sunu beneen numéro incha allah jaa ngeen jëf.